5M TV mbokk yi siifur 5 yi TV Sénégal dal leen ak jàmm Nabudaas daan nañ xotti ab plainte bu ñu ko yónnee moom mii nag Nabudaas ginnaaw bi nga xam ne daal fan yi rek amoon na ay coow yoo xam ne ñu ngi ko doon wax ci moom daan wax ne dafa divorcé ci cinquième mariage am moom mii nag Nabudaas ginnaaw bi nga xam ne daal doon na génn def ay live ci Facebook ak TikTok ak yenn ci ay plateforme yoo xam ne. ñu ci ëpp ci Sénégal dañ koy suivre doon génn di wax lu ko neex maanaam di xas ay nit maanaam di wax loo xam ne lu ñaaw la di saaga ay nit ba yenn ci nit yooyu nag daal di dem porte plainte ki nga xam ne daal moo di Nabou Dash bi ñu ko nag moom mii nag Nabou Dash dafa lànk ne di wuyu ji ba ñi nga xam ne ñoo di waa DSC ñoo ko daal di fekk foofee ci këram moom mii di Nabou Dash daal koy jël si ginnaaw bi nga xam ne nag jël si nañ ko yóbbu ñu ko directement ci police bi ñu ko jaarale fi xam ne di Fann ndax kat ñu ëpp ci Sénégal yi dañuy wax ne kat Nabou Dash mi wérul ay mbokkam nañu ko faji parce que moom li muy def nii ku wér du ko def kon nag instant bi mën ngeen a jàpp ne Naba Dash daan nañ koy loxo ginnaaw mi nga xam ne daal doon na génn def ay live di saaga ay nit ba ñaari nit daf koy porte plainte nag bu lànk ne du wuyu daal di jël yooyu plainte ñu ko yónnee woon daal di koy xottite ginnaaw bi nga xamee ne nag def na loole waa DFC daal koy fekk foofee ci kanam daal koy jël si kon mbokk yi kon jox leen dig daje beneen incha allah ci 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci ànd beeg 5M TV Sénégal ngeen wéy di abonné di partage ay vidéo yi jaa ngeen jëf ci topp bi. 5M TV Sénégal.